ami internet bu Actubuzz salaam di salaam di jàmm waaleykum jëm ci képp xam yaa ngi safoo suñu site bi nga xam ne mooy Actubuzz TV saa su nekk min la nag émission saa su nekk Pape Faye moo lay présenté bile bile émission émission ba tax na tey nag ñëw fii seet ki nga xam ne nag benn daan moo xam ni gënañ koo dégg ci lu ci lu bari ci lu baree baree ci ci ci la nekk kenn xamul mi ngi wàcc son wala album wala lan kenn xamul ak waa tey man ak yéen dinañ ko découvrir incha allah maa ngi lay fay baax ginnaaw yàlla ma jël seen tëb sant sama ñaari waajur euh, ñaanal sama papa sama yaay nekk suuf si yàlla suuf ay seen kaw di di ñaan euh, ñu nekk si problème ñi koy ñi caabi féete ginnaaw yàlla yàlla suñu boobu sutura leen ñu ñu juge leen ñi nga xam dafuñu dara yàlla yàlla suñu boobu leeral lépp si bàkk seen naam sang sang yi maa ngi nuyu ñëpp nuyu samay soppee nuyu sama soppee di nuyu yoof gi ma dëkk di nuyu parcelle gu ma jugee euh, muy pa parcelle indi trois faja ba ci maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ma maa ngi nuyu samay soppee nuyu samay fans nuyu euh, ñëpp bàyyiwuma kenn. alors boobu léegi gisuñu gisuñu Ouzin Ouzin ci la la nekk temps yi. Ouzin dafa rënk dafa toog toogaay bébéem xam nga àdduna yenn saay euh, tubaab nee na miftuwaa loo ki doox doomu aadama koo xam ne da ko ee da àdduna dafa gudd tànk da yàlla suñu ba meew dafa aale da nit ku nekk euh, nit ay garabam. Hmm. alors euh, man dama daan gis benn Ouzin boo xam ne dama daan jaaxal Ouzin bi ma gis Ouzin ci leer gi Ouzin ci taar bi Ouzin ci ci macha allah da nga daan gis xam ne carrément kii ñu benn daan jaaxle tubaab ndax da nga leeroon macha macha allah tey gisoo benn gis benn Ouzin bu ñuul lan la ko lan moo doon changement bi. Euh, xam nga xam nga àdduna dafa gudd tànk. da xar-xar mu tawee si doomu aadama. dañu ko nekk sa jur yàlla suñu borom euh, du la may lépp yenn saa yàlla suñu borom day day day jàng jàmb day xool jàmbi bi day xool jàmm bi euh, teg ko natt wala mu teg si ay problème du tey ku ma xamul nat dama ko xamal maa ngi génn maa ngi solu maa ngi lekk maa ngi naan wante am na loo xam ne lu xasa jàll la waa léegi esantoon sax naa yàlla baax a baax alhamdulilah alors tey boo demee boo demee euh, nit ku nekk dangay ngay am si colos ak yooyu noonu Ouzin lan la bëgg a wax Ouzin d'après que jot naa benn information comme quoi que da nga xawoon taw a temps yii yëpp. waaw xa xamoon wér naat ma doon wér tey suba ma ma génn suba ma wér suba ma ma ma tane. du tee tam maa ngi doon génn pendant ba pendant doon naa baale de. baale waaw doon doon naa baale affaire xam nga stress baaxul. waaw ma dem Zigo woo ma wala ma dem five Kafretaan wala bu dugg Pacifico Kafretaan ambiance xool samay nit xool samay du tee tam ñi ma war a ñi ma war a ñi ma war a xama xam na ñi ma war a xamalu ma alors euh, tey tey man man dina ma jaaxal Ouzin bu tëdd feebar lan la ci wàllu galaaj la jàpp wala feebar la nii rek wàllu mystique quoi de manière générale. xam nga xam nga àdduna sot mu tawee si doomu aadama. ndax euh, doomu aadama comme fi dëgg dëgg dëgg dëgg du mun a dëkk Ouzin Keita Ouzin Keita ay mbooloo ñoo ko mun a dëkk waa du kenn. waaye ñooñu ma dékkul te yàlla su ma suturaale ma sagana ma sigg na ma mënul ma dara taaba yàlla taa sans sama ma koy oto sampo bu kaa alors boo waxee man noonu euh, tàllu euh, maanaam yaa ngi mel ni ku may ku may junj ci wax est-ce que tamit doo gën a leer Ouzin xam nga ñi nga xam ni maanaam dañu la jàppoon waaw gàllaaj mun naa nekk kort mun naa nekk wante comme gàllaaj bi ñoom leen tox a jóg jàpp ma nit ne dina um am na gàllaaj yoo xam ne am gàllaaj day um dafa am gàllaaj yoo xam ne day um li nga war a am doo ko am waaw waaw comme li mu bëggoon mu tëddee nga tëdd feebar tëdd ñëpp ñu ana Ouzin sigi ndigaay wala ñu naan massa <laughs> loolu daal ma benn yoon waaw wa daf na ma si xattal daf na ma si xuloo daf na ma si xeex mm. waaw alors tey eh, est-ce que xam nga ñi nga xam ni ñoo la sànniwoon maanaam wàllum kort ñi nekk ci soo ci soo bis bi la wala wala say xarit say am eh, eh, dafa am dafa nekk soo bis am nekk ñoo xam ne sama am ñoo xam ne samay xarit nan ñoom samay xarit nan nit day ànd ak yow nga ebesi ko ànd moom te a tax euh, ñu kuy laal ñu ku bëgg ku bëgg a jot bu la jotul day dem si ñi nga ebesee ñu nga xam ne yaan ebesee mi ko ñu ñoo ñoo ma sottoo woon ñoom sot si seen mbokk da xam naa lépp. su ma la déggee baax mooy ñi nga xam ne yaa leen hébergé woon yow ci sa ci sa biir kër ñoo la sot yàqal la alors jaaxal na ma parce que ku mu dem kër Ouzin da nga daan gis ay nit ñu bëri man daanaa fa gis ay nit ñu bëree bëri mais ma sa kër ay ñu bëri ba d'ailleurs bi da nga déménagé am na say xarit yi nga yi nga àndal àndal. Euh, dafa am ñoo xam teg naa leen nànk ndax man du ma àndal dëmm du ma àndal vampire du ma àndal mort vivant du ma àndal époque du ma àndal damay ànd te yàlla tax ay yërmande jom kii sama kër ba nga fa ñëwee benn sama ba jànk nga fekk mais mais kii kii waaw kii kii kii ki may defal awa yoof la dëkk maa ngi nuyu à passage moo may ma damul fenn apes gu ma dëkkoon ma mettaan dama fay dem kaf reetaan sama xeey yaa ngi fa ñoom ñoom Pambur ngi fa waa Café gaa ngi fa ñoom Baye Fall ñëpp waa apes ñëpp a nga fa la ñëpp laa sëkk jàmm wax maa bëgg océan gi ma dëkk tam yàggu ma fi de waaye na ma fi ni ma bëgg wax dëgg yàlla macha allah maa bëgg li ba xamee toog tam sama nit la wax dëgg yàlla ba nga xamante yàggul tam wax du tey sëkk nañ jàmm sëkk nañ tey fii laa ñëw toog kaf reetaan alors ba tax na euh, am na benn tendance boo xam ne je pense benn euh, boo xam ne ab ay duul la ay faux la dafa maa yoo xam ne dafa maa yoo xam ne hypocrite xam lu leen sonal bës seen son dëgg dëgg dëgg dëggantaay njaay du soxla bës xam lu muy soxla def tey ñii gis ñii ñii ñuy wut lu ko waaw maanaam bu wut publicité di wut ñu koy tudd kooku du maara dul kat la. alors tey eh, yan maara nga jàpp na ñii nii dañuy dañuy wut buzz yan maara nga jàpp ne ñii carrément dañuy dañuy nekk ci ginnaaw Pawlish Mbaye di wut buzz ak eh, di di di yàq nit ñi. dafa maara yoo xam ne ma yàgg na maa woo maara yi ànd Pawlish Mbaye tey woo na ma ba taay maara yi ànd Pawlish Mbaye tey woo na ma ba taay dama naan cin bokkul safin teen du mën a pot ndaa